di wax ni yéen ñëpp gis ngeen fan yi ñu weesu ay yëngu-yëngu yu amoon ci dëkk bi euh, malheureusement ci loolu am nañ ci fukki nit ak juróom-benn yu ñàkk seen bakkan kenn ki démb ci ngoon la ñàkk bakkanam ñu ngi jaale ak di masow ñi nga xam ni njaboot yi nga xam ni ñoo ci ñàkk seen ay proche ñu ngi ñaanal également ñi nga xam ne ñoo ci am ay gaañu gaañu yàlla may leen wér ba ñu delluwaat seen njaboot yi ñu ngi exprimer aussi suñu solidarité solidarité autorité yëpp ñi nga xam ni am nañ ci ay loraange ñi nga xam ni am nañ ci ay loraange ci seen alal nga xam am nañ ci daal jafe-jafe ci événement yooyu mais li ñu seetlu mooy ñi doon manifester ñin ci jàpp te ñu mat ay téeméer. lu ci bare dañu yore woon ay ngànnaay ay cocktail molotov ay jaasi ay paaka ay armes de guerre la ñu yore woon te ni ñu doon defee manifestation bi daf ñu woon ni dañu gis loo xam ni daaw ñu ko woon gis suñu réew manifestation dan na am mais violence bi ci am léegi gisuñu ko woon donc ñu jàpp ni manifestation yi li leen li leen tax a jóg nekkul ni peut-être dañuy exprimer seen opinion walla leen lu ñu bëgg wone mais dafa dañu bëgg nasaxal institution yi daaneel yenn yi nga xam ne ñun ñoo xam ni ñuy dundee attaqué ay banque attaqué ay boutique u jaamur attaqué ay alalu jaamur loolu la ñu seet si si manifestation yi fonctionnaire de police bi nga xam ne am na ci gaañu gaañu mi ngi woon si situation boo xam ni dem na bay génnee armam pour utiliser ko mais bi mu seet loo xam ni ay mineur ñoo nekk ci foule bi ci kanam bare nañ ci mu delloowaat arme bi dem na ba situation bi nga xam ne ay collègue buggoon nañ ko sauver moom moo leen wax dem leen bàyyi ma fi mu nekk fonctionnaire bu émérite boo xam ni il s'est toujours montré par l'exemple ñu ngi ñaan nag citoyens yi ñu gën a góor góor lu jàppale force de défense et de sécurité yi lépp lu ngeen xam ni gis ngeen ko loo xam ni day nasaxal karange réew mi ngeen jàpp ci jox information force de sécurité yi pour ñu mën ko tax loolu la ñuy xaar ci citoyens yi te ñu ngi leen ciy gërëm parce que ñu ngi koy def bu baax di jàppale police nationale ak gendarmerie nationale ak force yi nga xam ni ñoo ngi impliqué wu yëpp ci gestion sécurité événement yi di leen jox information pour ñun ñu mën a gën a assurer seen sécurité ci loolu police am na numéro 17 bu ngeen ci wootee information bu ngeen joxe dinañ ci jot gendarmerie am na numéro un 2 3 bu ngeen ci wootee aussi lu ngeen bëgg a signaler rek loo xam lii day nasaxal euh, kaaraange réew mi dinañ ci jot seetlu woon nañ ci ndakaaru ak Ziguinchor la am ay yenn parti yoo xam ni amoon nañ jafe-jafe ci activité yi te loolu yàlla def na ni depuis fan yi ñu ñu ngi ciy liggéey te ñu ngi góor góorlu ba fexe activité bi mi ngi dellu si situation normal te day gën a jëm kanam police nationale gendarmerie nationale taxaw nañ tem pour préserver sécurité sénégalais yi ak seen alal te incha allahu bu ñu ci amee ndimbalu population yi ak seen jàppale loolu dinañ dina dina dinañ ko am incha allah comme ñu ko daan defee saa su ne ñu ngi leen di sant di leen gërëm. waaw waaw ju ma préciser rek li ñu jàpp ci ay nit mat nañu juróomi téeméer juróomi téeméer yooyu dañu yore woon ay ngànnaay ñii ay cocktail molotov ñii ay jaas yi ñii ay paaka ñii ay arme de guerre la ñu yore woon donc juróomi téeméer nit nit enquêtes yi ñu ngi koy wéyal. léegi ma bàyyi leen ak euh, commissaire Guèye waroon naa ko def sax ci début bi présentation bi euh, maa ngi tudd commissaire divisionnaire Ibrahima Diop directeur de la sécurité publique commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Masserigne fay mooy chef de service du groupe opérationnel de Dakar di GM ci Dakar moo leen jiite commissaire divisionnaire Cheikh Dramé mooy commissaire central bu Dakaru commissaire Mouhamadou Guèye xam ngeen ko moom mooy seen collaborateur au niveau de la police nationale yore bureau relation publique ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ma bàyyi donc commissaire Guèye mu def quelques présentation rek ci événement yi li nga xam ne jot nañ ko ci dund merci ci waxtaan bi mu wax ak yéen léegi mu aju jëm ci wàllu manifestation yi nga xamante ni dund nañ ko ci fan yi ñu génn dañ ci bëgg a partager ak yéen rek yenn ci ay euh, image ak ay vidéo yoo xamante ne xëy na du ñàkk sax ni gis ngeen ko muy firndeel rek li mu wax ni euh, manifestation yi nga xamante ni moom lañ nekk di dund wuute na ak manifestation yi nga xamante ni police daan na ko xam di jàmmarloo ak ñi ko daan def nga xamante ni lu ci ëpp li leen tax a jóg mooy euh, seen ay opinion la ñuy la ñuy wane Euh, ñu seetlu ni am nañ leneen lu ci rax loo xamante ni xëy na ci image yi buñ ci buñ ko défilé di ngeen ci gis ay yenn yenn firnde. Euh, ah vidéo alors image bi ngeen gis benn vidéo la buy wane nit boo xamante ni arme bii mu yore xëy na du ñàkk am na ñu ko gis sax. mais lii armu de guerre la waaw mu wóor ni kii li ko tax a jóg moom du manifester leer na parce que kii armu bii mu yor ñii nga xamante ni sax dañuy nekk ci maintien de l'ordre du ñu yor arme bu ni mel ñu nekk ci zone de guerre ñoo ko yore donc lii benn la ci firnde yi wane ni naam am na ñoo xamante ni dañuy manifester parce que dafa am lu leen tax a jóg mais am na ñu ci rax ñoo xamante ni Euh, leneen moo leen tax a jóg li olof di wax am na ñuy gàmmu mais am na ñoo xam te dañuy ras dem donc loolu mooy premier image bi beneen image waaw lii beneen image la boo xamante ni moom it day wane nit koo xamante ni mu ngi yor li ñuy woowee pistolet automatique PA mais ki koy tiire bu ngeen ko xoolee xam ni kii miinul armu bi mu yor parce que ni muy tiiree nga xam ni kii xëy na yor na armu bi mais. Euh, miinul li muy def loolu nag li ci mën a judd mooy incident ak euh, mën na ci lor ku nekk parce que li muy def moom ci boppam maîtriser wu ko mën na ci gaañ boppam rawatina nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay ay manifestants <coughs> beneen vidéo beneen bi également day wane koo xamante ni moom it arme de guerre la yore te arme bi mu yor kii ni muy tiiree wuute na ak ki nga xamante ni moo doon tiire sànq ndax kii professionnel la li muy tiire daf ko xam maîtriser na arme bi xam na li muy def te kii ku ko xool xam ni manifester taxu ko jóg waaw ñu gis ko nii mu yor arm jàkkaarloo ak force de défense et de sécurité yi lii beneen vidéo la moom it buy wane également nit bu yoree arme di dóor sans pour autant ñeneen ñi di gis ni mu ngi dóor ndax daf koy dóor rek dugalaat ko ci tegaat ko ci ci pooj bi donc loolu lépp day day firndeel rek ni am na ñuy manifester naam mais am na ñoo xamante ni li leen tax a jóg di manifester loolu nag day interpeller ñi nga xamante ni ñoom manifester rek moo leen tax a jóg ñu xam ni ci biir firndeel sa euh, opinion sa bakkan xaj na ci ndax ñi nga xamante ni ñoo ci rax te leneen tax leen a jóg ñoom bu seen pexe sottee mooy dinañ def ay dégâts maanaam dinañ tiire ci population bi te liñ ci jublu rek mooy fexe ba ñu jiiñ ni FDS yi ñoo ko def FDS yi encore une fois muy les force de défense et de sécurité population bi duñ seen ay ennemis nous sommes la pour la population li ñu nga xamante ni mooy suñu liggéey nekk suñuy mission de tous les jours mooy fexe narkan la euh, population bi di nekkee ci jàmm naka la ñuy mën a vaquer à leur occupation naka la ñuy fexee ba fànq lépp loo xamante ni jug na ngir gàllankoor seen ay activités loolu mooy suñu mission. loolu tax na exemple bi mu ci joxe léegi doon ci sëkk misaal mooy ki nga xamante ni demoon na ba nekk en situation de légitime défense ñëpp gis nañ ko ñu koy dóor ay ay briques mais mu garder sang froid parce que xam na ni ñi mu jàkkaar lool euh, duñu ay ennemis mais ñooñu ay frères am lañ ay sœurs am lañu. ñoom ñoo bokk lépp donc encore une fois pour leeral rek ni police nationale comme ni ko directeur de la sécurité publique waxee mu ngi taxaw temb ngir jàmmarloo ak ñooñu nga xam ni li leen tax a jóg mooy yàq activité économique yi li leen tax a jóg mooy euh, cambrioler ay kër li leen tax a jóg mooy dugg ci ay banque jël fa ay xaalis te am na ci ñu bari ñoo xamante ne jàpp nañ leen xëy na bu enquête bi soree du ñàkk dinañ fi ñëwaat ci yeneen jotaay pour leeral leen lépp li nga xamante ni enquêtes yi wane na ko euh, ngir ñu xam ni également euh, police nationale mu ngi taxaw ngir garantir la sécurité des personnes et des bien encore une fois ñuy woo population bi ci collaboration lépp loo xamante ni gis nañ ko loo xamante ni tey na seen xel nañ ko signaler police nationale muy guddi muy bëccëg li ci war jot nañu ci ay ndigal ngir def ci liñ ci war a def ba ñi nga xamante ni xëy suba dem liggéey seen liggéey moo leen tax a jóg ñu mën koo def te duñ ci am benn jafe-jafe. je pense des na denn deux ou dernière deux dernières images yoo xamante ni xëy na ay ay ay photo la ci ay lii exemple la rek ci. yenn ci ay nit yoo xamante ni jàpp dañ leen fekk ci ñoom gànnaay ah ak ay cocktail molotov yoo xamante ni dañ koy sànni way takk deer yi ah di ko euh, di ko sànni également ci kër wala fi nga xamante ni bëgg nañ fa euh, bëgg nañ ko taal mais également ay armes blanches lii benn ci arme à feu yi nga xamante ni mooy ngànnaay yi nga xamante ni saisir nañ ko ci ñenn ci nit yi ñu yu ñu jàpp donc encore une fois lii moo nekkoon solos waxtaan bi ah, di leen sant bu baax ci euh, seen ñëw di jeexalaat rek encore une fois ndax appel du doy wax population bi encore une fois nañu gën a redoubler de vigilance nañu xam ni euh, dénoncer li nga xamante ni mooy ay faits yu leen jaaxal ci seen i quartier loolu mooy seen sécurité voilà te à chaque fois buñ ko defee police nationale dina ci def liggéey bi war ngir ñi nga xamante ni ñoom dañoo jóg ngir yàq seen dundin ñi nga xamante ni dañoo dund dañuy euh, euh, xëy ngir fexe nu réew mi mën a bañ a doxee police nationale mën leen a mettre hors d'état de nuire euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax wasalaam